wax na ko ci beneen place ndax gis nga li Cheikh El Hadj waxoon fii ci Sénégal lu garaaw la waaye moo am ndax sëy sëy bu ko aadal lalee rek yoon dootu ko atte sëy xaqiqa rek ko mën a mën a lal yombul dem ca jàkk-jàkk séddale groupe jàng fàtti yépp mën na dugg ci biir aada moo tax mu ni woon mënuma waat ni nikaax am na ci Sénégal mënuma ko wan mën naa waat nag ni sibu nikaax am na fi luy niru sëy am na fi waaye sëy dëgg-dëgg man mënuma waat ni am na fi waaw ndax aada ju ëpp aada ju ëpp li yàlla wax yonent bi bés xëy ni ko wool sa soxna yi wool sa soxna yi wooleen ñi ci sëyëg yow ngir am nga barke jox leen barke ñu dem ñi ci sëyëg yow ndax am nga barke jox leen barke ñu dem mais ñi ci sëyëg yow parce que nawle lañu te man lañu gis ci sa jëmm bàyyi leen fi parce que nawloo ci wàllu sëy lu rëy aada rekk koy dindi nag waaw aada rekk a koy dindi ah sëyaleeg diw ndax mën na mën na waaw bu mënee tudd nawle nag séylu tiw ndax man na ñu bari moom lañoo wax seen doom séylu tiw ndax man na mais budul nawle nag nawle mooy koo xam ni amul benn kudul nawle mooy koo xam ne bokkul ci benn cause cause bu ñuy mën tudd buy dellu ci yiwu yàlla ak yonent bi ku ca bokkul amul ca yitte du nawle waaw moo tax moo tax mu yonent bi qul li azwajika in kuntunna turidna alxayata dunya wa zinataha fataalayna fataalayna ummatti'kunna waaye nag wa usarrixkunna sirahan jamila waaw wa in kuntunna turidna allaha wa rasulahu والدار الآخرة فإن الله aadda lil muxsanaati min kunna ajran adima la yàlla wax yonent bi ñi la topp ngir barki ci say soxna ñépp jéggal leen parce que barke tolloowul ak dignité dignité jigéen ëpp doole barke dignité jigéen moo ëpp doole barke du benn jigéen ku koy jël na dignitéem tax momit it ku muy àndal na di ñi dem tax waaw waaw waaw eh bu ko defee beneen ñëw nag bu garaaw garaawu jàmm ndax dafa bari lu mu indi xuloo wallaati taxaafuuna nushuzahun faiduhun wahjuruhunna fi wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu عليهن سبيلا bobu itam nekk ak sa jabar ba mujj mu woon la jikko moom la yàlla wax ci alquran nee na dana di dikk kris lay doon crise lay doon ci biir sëy benn jigéen mënu ko tolle toléré pour wan la ni jigéen ñoo gën a muñ góor di nga toog ak sa soxna bu mujj mu xëy rek won la jikko jikko boo xam ni feeg waxtu bu ko dindiwul nga dof fi complètement di nga gis sa bop di nga waxu dem ci buntu kër ga dellu si dinañ la jox lek gi nga gedd ko lu ñu def ci biir kër gi to yalla wax ni su lolu amé bala nga jëm ci dóor yëkëti sa loxo nee na waxtaanal ni ko àdduna du nii waaw ni ko may maay sa càmmiñ yaay sama jigéen waaw waaw na wax ko ni ko dara nekkul ci man lu xew waaw nee soo jàppee loolu mutta nee defal ni moom ndax benn mu xër ci yow ni nga xëre ci moom walla defu ko bu xëree ci yow te di ko nëbb defal ni moom dee ko romb rek léeg-léeg muy ndiyaañ bi nga ni ko ah te daal xiifuma waaw ah. ah. walla waaw joxe sa dépense sa doy nga ni ko wala ma di xamu lu ma jot fan yi man daal lu dugg sama mbir bi rek doy na sëkk waaw ah. bu guddee léeg nay gestu gis ni tëdduloo ci lal bi bu suba mën na mooy foo nekkoon nga ni ko dama tàng màngoon ca peron ba yàllaay wax de kenn waxul yàlla ci boppam mooy wax nee loolu yépp su paasee te taxul mu soppeeku nag nee na soo dee mbéjit nga sog a mbéj bopp waaw waaye yonent bi nee na nga xam ni ki nga mbéj du war waay nawle la xanaa kii boog dëggal na waxu yàlla waaye am na fu mu ko damme ndax yërmande wa jaala baynakum mawaddatan wa rahma waaw eh, moo tax góor gi daan na wax ni doom maa ngi leen di digal ñaar bii ak ba ca topp bu jëkk bi mooy na ngeen fexe ba bu leen seen jabar xamal ñett na ngeen fexe ba bu seen jabar xam ni da ngeen bëgg jigéen waaw ndax bu ko xamee bu la bëggee nattu nattu la na ngeen fexe ba bu mu xam ni da ngeen bëgg lekk bu ko xamee bu leen bëggee nattu nattu leen na ngeen fexe ba mu bañ a xam ni da ngeen bëgg doom jigéen bu xamee ni da nga bëgg doom bu la meree dóor sa doom dara nga ci mën waaw

ne fala sa jabar di gërëme fekk na màggat nga màggat na waaw loo ko jox nag du ko xeeb waaye bu mu la ci fekk waaye sonn nga fala koy waxe waaye fa mu ca tolloo loo indi mu ne xanaa du lii moja bokk na ci minel diine miinal sa njaboot yàlla ndax ku nekk këmu miin rek lay niru te mag ñi bokk na ci seen pexe fexe ba seen njaboot miin yàlla te gisuñu ko kat waaye dinañu ko miin ci jëfandiku ba du ñu texaliko moom lu am solo la cheikh alhaj malik dafa woy dafa woy ay soxnaam daf leen woy waaw won leen nit amuñu njëkki yàllaay seen njëkki waaw won leen itam nag miin sa njëkke jot na waaw waaw won leen ni amuñu njëkki xamuloo ku nekk ak ka nga tànn moom xam na ni yàlla ko mag njëkki ci ay soxnaam mu ni leen amuleen njëkki yàllaay seen njëkki te miin sa njëkki nag jot na waaw mu woy ko woy ko mi ngi ci diiwaanam yaa qurratay aynina waxul sama jabar daf ni yow mii sama nagu bët ndax jabar mook bët bu sedd ci jëkkër benn la waaw mu woo nag pour ñu miin seen njëkki yàlla yaa ay nina tuuba ilallahi littaibina karamatum min allahi <laughs> naa njëkke ñaari junneeg sér la mën a joxe waaye yàlla nag am na lu mu mën a joxe mooy kilifa yi ñuy daw topp ci seen gannaaw tey waaw yaa qurratay ayni na tuuba ila na karamaatu min allah mag ñëpp way jigéen mag ñépp waaw rawatina yonent bi ku réylu yaa réylu mais mag ñëpp mag ñu baax ñëpp way nañu jigéen way waaw te ko ndax li nga way jox sa njaboot ñu tari ko nga def ko ci sa diwaan móol ko nëbbuloo ko waaw da mag ñi ñu ñu xay lañu ñu civilisé lañu wute nañu nun nun dañu rëy waaw يا قرة عيننا توبا إلى الله للتائبين كرامات من الله سما بيل حاج عبد العزيز دباغ مس نانكو ماي سخنا بو توتي سخنا ميمونة تنر بو توتي نك ñi mu bokkal daara xarit yi di ko tooñ ni ko dafa tuuti ba mu def ci nuuniyam boobule ayuha laaimuna fi maymuna قللوا اللوم ايها اللائمون Uh-huh. أيها اللائمون في ميمونة قللوا اللوم أيها اللائمون maanaam ñi may yedd ci ci sama ngune su tuut sii ngeen yeboo dal néewal seen yeddeel ndax itam du tax ma dellu ci gannaaw waaw sëriñ babacar si mas na topp ci benn xale bu jigéen ca ndar ca kaw pomba xale baa ngi sol muslin bu rafet waaw أتتك التي ذات مسل خلاخل تميس كريم الوعظ فاترة العين mu jaaxle ci kii mu topp ci gannaawam ak muslin bi mu sol mel ni kéwél guy dàggu ci suufu beñ waaw damm bëtam ba da nga defe ni bët bi dafa tayal nanguwul xool waaw ñoom ñépp ci cadre diine ak yar xam nañu kuy jigéen ndax euh, imaam yi jëkk sax bayt ba jëkk bayt ba laa wax benn taalibeem dafa toog xarir yi dafa xamoon lu ne lu ne la xam waaw bu dee jàngale léeg-léeg ñu laaj ko laaj bu gàtt mu tontu ko wéyale benn taalibeem jékki-jékki muy at mu sedd ba sedd bi kenn kenn kenn na xamul nooy def sedd bi mu jékki-jékki ni ko sëriñ luy faj sedd mu ni ko saytu bu man boppam dox nag mu jeex takk mu ni ko sëriñ luy faj sedd mu ni ko saytu bu man boppam نقول قال لسوك يندي بيت بنك جاء الشتاء جاء الشتاء وعندي من حوائجه سبع إذا القطر عن حاجاتنا حبس كن وكيس وكانون وكسطلا بعد الكباب وكس ناعم وكسا nee na sedd bi ñëw na taw bi tàmbali na maa ngi juróom-ñaar maa ngi néeg bu aful maa ngi compte bancaire bu jeexagul waaw maa ngi cheminée bu fayul maa ngi kaasu ñollu bu mer mi giifagul maa ngi wàjj wu seddagul maa ngi saytu bu man boppam maa ngi mbàjj mu ñagasul ak ni mu toll ak ni imaam Hariri yi toll wante ñoom dafa mel na yiwu yàlla lañu bëgg woon nit ñi ci jamono boo xam ne ku nekk defe woon na di diine mooy toroxte bu dul jeex mukk loolu moo taxoon seen liggéey rëy at mi def naa xasida moor galay jaw góor gu mag bare na ku taalibe topp te jàngal na la góor gi moor bokk ci fóorey réew mi li ngeen ji tudde ak tarbiyatul jinsiya ñu di ko wax éducation sexuelle moo ci jëkk taalif fii ci Sénégal te tey tubaab yaa ngi soog a jóg ni ñu ngi ciy taalif pour wax la ni diine lu nekk ngi ci biir xanaa ki ko dégg ki ko déggul wala ki ci topp aada ki ci topp xaqiqa rek def na ci xasida bu nekk tabarkal la mu bare coow lool ci réew mi mag mi bare duñ ko jàngale ci seen kër ni rus nañu ko waaw ñu bare duñu ko jàngale ci seen kër ni ndax rus nañu ko rus nañu jàngal seen doom naka laa nekkeek jabaram moo tax ñi ko rusoon ñépp dinañ leen may soxna ngir yàlla ak yonent bi waaye soxna sa jaam lay doon ba ba mu faat ba ba mu wuy boroomam ndax ki ñu ko dénk du xam ci àqu jigéen dara ndax jigéen bu fekkee ni bu dul ndab li mu la tegal du lal bi mu ni la ay ci yooyu ñaar rekk nga koy fale bu dul moom xamuloo mi ngi dundam déet nekkuloo ci sëy nekkuloo ci sëy nekkuloo ci sëy jële na ci yonent bi moom góor gi moor gay moor galaay jaw wax na ni kafak sa jabar benn guddi yoolam mook dee ci jihaad benn la kafak sa jabar benn guddi mook dee ci jihaat benn la ñoo yem yool te ki nga bàyyiloo ndeyam ak bàyyam bàyyiloo ko ay habitude am bàyyiloo ko ay xaritam indi ko ci sa bopp loo def lu seddal xolam yool baak yoolu jihaat benn la waaye it du tee moom it fitna baa ngi fi fitna bi nag bi ci jiitu mooy piirte jigéen nag waaw yonent bi yàlla daf ko may benn jigéen bëggul lu dul moom muy sayyidatuna Aïcha radiyallahu anha sayyidatuna Aïcha fiiral la ko ba rekk yonent bi du am jàmm ndax piir seen rek wallaay ba àgg ci yonent bi bokkoon na ci yi mu gën a bëgg ci wàllu lekk muy muy lem lem eh, daf ko daan mos ndax li yàlla wax ci alquran ni saafaraa ngi ci lem bu bees la bëgg nag boo xam ni eh, daan na ko jël la ca dëgër mu di ko yëy ni ñoo yëye si ngom ndax yonent bi dafa selloon te dafa bëgg lu sell bu ñëwee ci sidna Aïcha dina ko ko defaral waaye bu demee feneen ba ba jël ko fa ñëw ci moom mu ni ko xanaa danga lekk eh, jonkanu ngos ngosaan ngos-ngosaan benn espèce la wul lakkale boo xam ni léeg-léeg muy roy roy lu yemb di am lu muy génne te dara baaxu ci boo ko defee ndeysaan yonent bi xol bi dafay tàng jër ndax dafa sell sell sell bi muy laata nekk yonent la sell bëgg lu baax bëgg ñam wu sell daf ko defarlu dañ ko ko sellalal tabarkal la tabarkal la comme xam na ci moom boobu jikko nag bu ko bëggee tooñ rek ni ko li nga lekk baaxul li nga lekke feneen baaxul waaw ma ko loolu yaa ko saj de eh, sunu benn wayjur bu nekk ci Tiwaawan ndeysaan nee na nee sama payel Hajj Abdoul Aziz daf ko yóbbu Ndar takkal ko fa jabar nee na te mësuma lekk mukk cere ju ñu siimul ndeke yeneeni cere ngi fi yoo xam ne kenn du leen siim nee na ma it ma fanaan si ne ñu indi ko taj ne ma dugal sama loxo jaaxle loolu nee na ma tibb sax nee na yëg luy daw ci sama biir gémmiñ te xaw ma lan la nee ma di ko wut e boo ko nappee fii ne mu jàll fii ci des ndeke sama soxna xaw na ko nàmb waaye maa ngi ni pàtt rek nee na di wër moom diwur wër moom ba fi ma defee ni napp naa ko rek nee na mu ni rajax ma ni wuy sama ndey na sama soxna ni ma nijaay ma ni ko mu ni ma lujum la ma ni ko ah, doom luy lujum kenn dama xamul luy lujum mu ni ma fii lañ ko togge ma ni ko fii de des na fi togge lu ne wallaay ba tax na mag ñi ñoo ñu gën a xay ndax xay ci xàmme ak sago lay tegu ñoom am nañu xàmme am nañu sago waaw suturaal nañu ña ñu àndaloon yàlla jox leen barke àdduna jox leen barke àllaaxira waaye nun nag fat fat fat fat fat fat fat fat fat fat rek jigéen ñi sonn nañu tabarkal waaw ah xanaa daal di ci bàyyi xel ndax itam ku wal mburu tudd dëkk te cheikh alxaaj malik radiallahu taala anhu yàlla jeexlewul dara nee na la woon bu jëkk ba tey moo fi nekk waaye nee na nag ku ko jaarul fa ñu ko daan jaar ne doo ca jot waaw fa ñu ko daan jaaree rek mu mel ni kon nag ñu jéem a dem ci waxtaan wi waxtaan wi nag ngi aju ci ki ñoo tuddee jullit moom la ñu tuddee jullit nekk yonent sant ñu la nga yem ci nekk jullit

ba yàlla accepté la ci ëttam fa ngay àkke ji bu ko kenn xam waaw lu am solo la waaye nekk jullit rek tëdd ci ëttu yàlla di xaar àjjana kooku gàcce la waaw gàcce gu rëy la lu ma taxoon yonent bi sonn ndax xam ndax xam ñamu bokkal ndax xam ñi ñu ko yónni ci ñoom ndax xam luy seen baax waaye xamit luy seen ayib